asalaamaaleykum wa rahmatullah téléspectateur Equivox TV yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si yéen di leen nuyu fu ngeen mën a nekk rek di leen ndamoo di leen sago di leen wax na nag tey ñëw na ñëw nañu ak yéen ci lu bees wala boog loo xam ne ak ab jàkkaarloo lañ koy tudde maanaam face à face muy ñaari xale Baye Mandione Junior doomu Thiaroye Fourière doomu Grand Yoff waaye balaa ñu dugg foofu ak li waral jotaay bi dañuy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun li ko wax li ko waral mooy ku ne xam na ne senegal fan yi dafa nekk ci dëj boo xam ne nii dëj bu metti la ndaxam dee yi ñaa ngi dee ci fu nekk waaye nag dafay am ñoo xam ne bu ñu dee maanaam day marqué askan wi te li tax loolu mooy ku mel ni Thione Seck bu génnee àddina defe naa ne marqué na monde entier rawatina Sénégal gi nga xam ne fii la dëkkoon li ko waral mooy li mu daan yëngatu di ci bégal doomu aadama yi muy kàddoom di way defe naa mu génn àddina dimanche bi ñu génn nu koy jàll waa Sénégal yépp di ñaan yàlla jéggal ko yërëm ko te xare ko aljana mook bépp jullit bu tëdd ci suuf di ko jàll ak njabootam rawatina doomam bi nga xam ne defe naa tey Sénégal yépp xam nañ ko la àddina bi muy Wally Seck waaye di ko jaal ñoo xam ne tamit ay doomam la ñu ndax yàlla moom a boolewoon ak ñooñu ba tey ñuy dund loolu muy ay doomam Penda Seck muy Bambali Seck ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy Serif ak ñoom ñëpp maa ngi leen koy jaal ku mel ni ki tamit Mbaye Sy Ndiaye di jarbaatam maa ngi koy jaal ak ku mel ni Youssou Dieng di ko jaal waa daan yëpp mais di ko jaal Sénégal yëpp di def ci moom benn seere bu ndaw rek balaa ñuy sori parce que li tax mooy dafa am loo xam ne yàgg maar xare olof na ne ki ko teewee ko mën a nettali dañu nekk ay xale nekk pompier di fa ambulant di topp oto yi di jaay Papa Thione daan fa jaar di dem studio 2000 boobu mu ngi yor benn deux porte bu rouge bu ñëwaan oto bi li muy jënd ci ñun ñun ambulant yi dina mat au moins benn deux cent mille wala cent cinquante mille bu ñu waxee mu ne ñu dama leen di encouragé pour ngeen gën a liggéey ndax ndaw day liggéey li may jënd sax man naa am soxla moo ko dama koy may ji mais yéen lay jàppale te saa bu jaaraan noonu la koy doxale li may wax ñi ko fekkee ñu ngi fi Leykan a ngi fi Aziz Ndiaye a ngi fi ñoom aboo ñu ngi Italie ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñoo nekkoon pompier di ambulant loolu moom bu may def ci moom ndax maa ko dund ak moom kon te naa loolu ku koy def xol bu laab nga am fi ñuy dugg fenn la Vox Arena li ma leen wax rek liir bu bees bu juddu di ab label boo xam ni lépp lu jëm ci wàllum yëngu-yëngu yoo xam ne luy mu réew na ci mbégte la dañ cay taxaw bi ñëwee nag sport ba culture ba am ca doole lool te ku ne sport ne culture boo nee làmb ñaar yooyu daf fay daal di dugg ñu indi ñaari xale yoo xam ne kere bi mbëri jàkkaarloo fii kenn ki daa ñëw kenn ki ñëw Fourier dafa tardé woon te dëkk Grand Yoff kii jóge caaro yi ñëw mbir mi jaaxal Sénégal ñu ne leen nag léegi ah, dañ leen di boole ñoom ñaar ñu taxaw jàkkaarloo. Fourière a ngi de ama gauche bàyyi ma ñoon Signor a ngi nii ama droite moom di doomu Thiaroye dugg ci làmb ji 2016 la commencé bëre am 8 combats 2 victoires 2 défaites kii dugg 2015 am 11 combats 9 victoires ak 2 défaites. kon mu mel ni ha ah? 6 victoires 6 victoires nga am. Ah. ak 2 défaites. kon maa ngi jégalu noonu la demee dugg si 2000. 15 wala 2016. 2016 kii moo dugg 2016. astafurlah 2015 noonu la demee muy ñaari xale yoo xam ne defe naa ne Fourrière mi ak Baye Mandione ku xam lamb tey seetaan lamb ku ne xam nga ne ku leen boole boole nga njar ndim ñoom ñaar nag bala maa sori damay bàyyi ñoom ñaar ñu nuyoo waaye mu ngi nuyu tamit assistance beeg technique bi ñu ko gérer ñëpp rawatina ñoom hélas yàgg maar ak Gomis ba ci Balde ak Habib lem fatigable Baye Mandione si ñor nuyoo waaw di nuyu di wax la onze bi kalimaatillaahi taamaati kullihaa min sharri maa xalaqa mhm. ma sant yàlla julli si yonent bi di sant suma ñaari waajur di leen ñaanal yàlla xare leen àjjana sama papa ak sama yaay ak mboolem jullit bi ñu fa fekk mhm. di la nuyu Babacar di nuyu sama adversaire Fourier ak caméraman yi mhm. di nuyu waa Caaree géej bu baax a baax a baax tey nu ñu mel ne Caaree la dëgg la waaw di nuyu sama mag Baye Mandione bu baax ak jabaram Fourrière nuyul li tax ma jox ko mu jëkk nuyoo parce que yow yaa ko ndax yaa ngi dëkk fii Grand Yoff te ku ne Sicap Foire ak Grand Yoff xam na ne benn secteur bi la nuyool waaw onze billah bismillah inna wali yàlla di sant ñu teew si jotaay bi yëpp di mi Babacar di la sant bu baax di sant waaw lu di wax si lu waraloon maanaam tardement ba bi passé mhm. parce que dañoo nekkoon si màggal Kazu Rajab comprendre nga fa lañ demoon looloo war a suñu tardement maanaam ñibbisi bi sax mu ngi fekk si yoon mi waaw looloo war a suñu tardement quoi loolu farata ndax sëñ Fallooy borom dindi di def di dindi kuréer mu gindi bàyyi sëñ aboog sëñ Abdou Karim mm-hmm. kooku it bésam nag jaawale ko da dul wóor dem ci day gën lu ne uh-huh, te boo dem taalibee mi tam dem ca da lay daal di war mm-hmm. kon defe naa loolu ndox ndox rek xam nga mm-hmm. ñu may jàppale ñëpp ku si mel ni Yves xam nga léegi mbër xam nga nu ñuy def balaa ñu ñëw ci woote di ngeen woote mais loolu après la ku ne woo ki nga bëgg a woo loolu ak Vox leen ko may ak Vox Arena mais damay laaj yow laay laaj Fourrière combat bi nga jógee daaw daa metti kii xam nga ko lan moo tax nga nangoo jël Baye Mandione Junior waaw mbër la ko mbër yi rek xam nga te tamit daa wane ay moo tax ñu jël ko comprendre hmm. nga mais da du loo xam ne ne sama combat depuis tabaski ba léegi waa Vox Arena ñu ngi ko doon dab ñu ngi ko doon dox xëy na moom la yàlla jogal moom mu jël combat bi waaw dañ dañ dañ ko sant di ko si gërëm. ñu ngi ko doon dox gars yi dañ dañ ko doon dox gars yi di daw walla waaw ñu ñu mu jaar bëri na. Hmm. gaa yi tegg seen tànk. di daw moom moom moom moom la yàlla dogal moom mu jël ko. Hmm. sant yàlla rek. Hmm. di wax tamit xam nga maa moom ay adversaire lañ. kon est-ce que yaa ngi comprendre. ay adversaire lañ maanaam wax wax ju ñaaw. comprendre warul si suñu diggante maanaam ku képp ku ñuy seetaan sax. maanaam dañuy xeebu day day xeebu ci kawam. dañuy naan kii kii nii. mbaa wax ju ñaaw dafay jot a am. comprendre nga dañuy wax rek. est-ce que ah, wax rek pour wax ju ñaaw bañ a am voilà. waaw man bu may ñëw man dañ ma dañ ma laa yeb dañ ma yeb dañ ma ñaax am na solo comprendre nga voilà moom bu fekkee moom ñu ko moom day day demee nii rek waaw kon ñu yàppee ni loolu la mais dama lay wax mbër maanaam damay wax leneen loo xam ne ne su ma fa jógee tey jii tey jii su ma fa jógee ñëpp mhm. naw ma est-ce nga mhm. mais du ma wax loo xam ne ne tey du ma jógee dañu ne ah kii kii ki mooy loolu est-ce que nga mhm. da wax wax ju teggi ne ko am na solo bàyyi ma ñoon siñor lu tax nga jël kii balaa ngay tontu ci loolu nga xam ne wax na ko ci pour kàllaama yi gën a rafet. man xale laa damaa ne ci làmb def samay preuve. Mhm. tegale sama six victoire kon kii dama ko war a jël bëre rek moom pour nga daan pour nga doon champion nag faa nga daan ay champion. Mhm. dama mujj jël sama combat kàngam. Mhm. ñoom ni comme ni ñuy wax si combat bi rek. dafa teel ma dem jël kàngam daan ko ndax kàngam moom moo daan Jackson daan xumbal. kon kooku ndaanaan la bu baax waaw ma daan ko. frère koy jël daan ko leneen. Hmm. man nag damaa yaakaar wax ji muy wax ne damaa yaakaar daam beneen émission moom boo xam ne bokkul bii ndax émission bàyyi doo commencé waaw waxaguma fi loo xamante dafa teggenewu n'est-ce fi wax maa la koy laaj ko waxantewul ci roq bi dañu xam mooy mooy may wax rek dëgg la bu baax a baax parce que boo jëlee fourrière rek maanaam ah, am na foo am na statut boo xam ne ne yaa nga xool nga nga war a doxal comprendre nga maanaam boo ma tey ji boo ma bu la yàlla maye ndam sama kaw xam nga dina la yóbbu fa fu sori. est-ce que comprendre nga. mais dina am ndam nag dina am ndam dama koy daal moom xam sax. ah moom loolu la foog si bo mu àndal loolu lañ foog. mooy am ah. comprendre nga. mais bu bu jour si xam ne ne fourrière fourrière biir yi ak fourrière boo xam ne waa Grand dañoo nekk si si kawam si ginnaawam non beneen fourrière lay doon. bàyyi fourrière day bàyyi. Mhm. bàyyi moom bu yàgg day bàyyi. maanaam da nga koy mu bàyyi wala da nga koy daan. moom day bàyyi moom bu combat yu métti muy bàyyi ngir yàlla entraîner loolu laa lay conseil entraîneur loo mën. kon amul condition physique nga bëgg a wax. moom xam na yow seetaan nga combat bi passé combat am la mais daa bàyyi. Ah, bi dafa sonn. man kay maa nga foofu. yow combat bi ni mu yàggee yàgg nga wàcc nga say mbokk di bàyyi loolu ñun du du. waaw mooy mooy lu may wax rek. comme lu Dof Ndeye wax rek xam nga ku ku munul ku munul jëf moom wax wax dalay yomb. man fu gars yi di waxee waaw déglu ma fu gars yi di waxee man dama leen di romb fu gars yi waxee man dama leen di romb. est-ce comprendre yow maar parce que moom dana na daf laa seetlu kii daa mel ni kon loolu tax mu jël daa jàpp ne yow bu mbir yi taree maanaam bu bu bu guerre bi méttee ba méttee ba métti da ngay déposer say mu joxe toog joxe joxe say loxo. loolu la loolu la la waxal. defee tamit daanaka daa bàyyi. loolu la foog. léegi yow est ce loolu mu foog am na. est ce que yow loolu nga foog. trois défaites la trois trois défaites la bi mu bàyyi. mooy maanaam yow. am na statut boo xam ne wane naa ko tey jii da may gis rek nga xam ne ni diwa ngi nii comprendre nga. waaw waaw loolu loolu lu ñuy wax lu ñu liggéey la est-ce que comprendre nga. Hmm. moom bu fekkee ay wax la yaakaar pour daan ma mu ngi nax boppam man ay wax daanul ma. bu fekkee hmm. daf may déstabiliser pour daan ma non mënul mënu ko jegewu ko sax. mënu ko mënu ko jegewu ko sax. est-ce na hmm. comprendre nga lenn rek moo am solo. ànd na dem ànd ak boo xam liggéey li muy war a liggéey kuul kuulam. actuellement nii boo ko xoolee yéen ñaar kan nga jàpp ne moo gën a liggéey tey bu arbitre bu noonu leen suba la combat bi. déggoo man dara dool du ma jaaxal parce que ku nekk laay bëreel est-ce que comprendre nga nit mënul chargé loo xam ne ne man ma carrément jaaxal na ma mais dafa dafa di loo xam ne ne hmm. bu ko ñaari gor sekkee hmm. nañ ko matal ba mu ba mu mat mais ni ma ko gisee nii daa mel ni ci côté volume ak yooyu daa mel ni moo la gën a kii de loolu tiit tiit tiit jaaxalu la waaw gis nañ ko si lu weesu mooy sama combat bi weesu bu nekkee volume rek maa ko ëpp volume mais daal làmb moo laaj leneen est-ce que comprendre leneen voilà loolu si loolu laa nekk si loolu laa nekk di di ci liggéey di yow kii da koo xeeb ba tax nga <laughs> yaakaar ne da nga koy daan jàll. waay xeeb loolu ma ngay xeeb. ah est-ce ni nga ko xoolee nii mu taxaw nii xaw a yaru nga yaakaar ne. ku ne la hmm. maa la man. waaw bàyyi ko bàyyi ba dimanche. mais lu may liggéey ak lu may doxee ak lu may jëfee. Hmm. damay entraîner matin soir man du ma utiliser loo xam damay may yaram man xale laa damay màgg. Hmm. sans comprendre. fourrière mi nekkul moo may téye. barki Seydina Mohamed. Baye da ngay waat nii. barki Alxuraan laa la waatal parce que Mohamed laa la waatal mënumaa tey barki Seydina laa la waatal kii làmb boolewuñu ma moom. Ah, ah, man nag làmb moo ñu boole <laughs> lan moo ñu boole. léegi lu leen boole. mooy mooy li ma la wax ba léegi gars ajjuma lañ ma woo si guddi. waaw moo doon tam moo ma ko wax ne ma su combat prière bëgg. ma ne man pare naa kon doo doo ma fa sax di laaj samay ménager ak yeeg naa xam naa ne combat bu jaadu la te ñun ñooy mayante xaalis sa samedi ba samedi ba lañ ma ne ma jour ñëwal jël sa avance. kon yow ni ko gars yi ragal ragale wu ko. ragal lan laay ragal ki yor bët làmmiñ yor loxo ma koy ragal. waaw mooy mooy mooy lu mu wax rek. si signature bi la fanaane. waaw loolu de la wax. bu fanaanoo mer benn benn yoon man fanaanoo naa mer dix. est-ce comprendre nga. waaw ndax fi nga jugee la. voilà waaye man lu ma lu ma daan dama koy fàtte li sama kanam laay xool. waaw man man mënuma fàtte loolu. Ah. bu jëlee di ko di ko di ñaanal suñu suñu euh, adversaire bu weesu xam nga moom dafa am ay dog-dog di ko ñaanam xam nga. amiin yàlla teg bébé jéen waaw waaw waaw ndeysaan yàlla na yàlla génne fi mu na ko yàlla génne fi mu nekk. bu ko bu bébé ak bébé Lomaram bu fa nekk bu loolu bu demee wul noonu sax ñun dinañ def suñuy pexe ba maa xalaat maanaam ñu dem bëree bëree jeel ba comprendre nga. Mhm. ñu ñu bëree bëggal bëggal amateur yi man loolu mooy sama suwee quoi. ndax bébé jéen waaw ndax bébé rek. ndeysaan loolu mooy sama suwaa. mais keroog dama la gis si combat bu nga bëri bëri bu tar xeex bu metti bëree bu tar nga mujj a ñàkk donte combat ba metti na est-ce que sa combat kii xalaat nga mu yegg foofu ci bëri bu mettee xeex. waaw mooy lu ma la wax rek xam nga làmm moom boo nekkee si ndaw maanaam da demee su fugu comprendre nga maanaam ku taxaw sa kanam même bu ñu la dalaa da sax da lay da lay jaaxal la. Mhm. comprendre nga. Mhm. loolu ngay ñëwee xam nga foo ne noonu la demee mhm. comprendre nga man ñëwee naa noonu maanaam liggéey naa liggéey boo xam ne ni musuma ko liggéey sama ant sama sama combat. ok comprendre nga ma ñëw mu demee noonu. Mhm. damay xam ne ne làmb yéena ma foofu noonu te jàllal na ma loo xam ne ne tamit su ma fa jugee ba ba war dinaa wane waat leneen. la nga bëreeg Bébé Diène kii àttan na ko. ah loolu moom wax dëgg yàlla du lu ñuy du lu ñuy sori mais yàlla baax na daal. ah déet war ngaa mën a xool sa adversaire nga xam ne kii li ma li ma yor attanu ko bu buñ ci demee bu mitte wala yow leeru la. yow fi nga jaar ak kàngam kii àttan na loolu. Mm-hmm. man li ma liggéey moom ma intéressé te ñaanuma yàlla combat bi am une minute. ah bëgg naa at bu wàccee ma jàpp ko dox si kawam daan ko taxawal man maay ñëw. parce que lu ma lu mu liggéey lu mu liggéey pour une minute la. est-ce la kon non loolu la foog. kon yaa jàpp na ma condition sama combat ak rawaat ñaata minute la. yooyu góob noonu la yàggee. daa mujjee bàyyi mu dóor ko mu daanu. moom loolu la ma ordon. mu tegale six victoire ma ñëw bëre moom combat métti daan ko kàngam ñi mu daan wax combat bi day yàgg 27 secondes laa ko daan. est-ce que waa ji yaakaaroon da nga am condition physique bu doy moo tax mu li nga liggéey nga fa. yow seetaan nga moom moo amul condition physique bu doy. Mm-hmm. moom mii waaw li mu li mu jëloon ba toll noonu. Mm. dama koy conseillé mu bàyyi ko. lan taay bi baax na dégg nga. am lu mu jël wax na la ko si biir wax ne dafa jëloon poids. amul kuy entraînement di am yaram est-ce que du entraîné am poids nii rek. entraînement yi métti dëgg doomu yaram Hmm. waaw ñun yàgg nañu entraîné. <laughs> waaw yàlla baax na man daal. lu kon soo leen nattee fi mu ne ci doole. comprendre tey bu arbitre soufflé woon yàgg moom. bu doon ngoon pare na. instant maa bëggoon ñu bëre balaa ñoo woor barki Seydina Mohamed. yow loolu loolu ngay ñaan. billaahi wallaahi moom la mbër yëpp di ñaan. moom la mbër yëpp di ñaan. kon da nga gëm ne sa waay pare loolu moom la concerné. mais man li may sentir rek sama deret lu muy hmm. tàngee. Hmm. man loolu laay sentir man. loolu lay fugu loolu la ñuy. mais Fourrière kii ñu na la nag. wala loolu la ñuy wooyee maanaam tolluwaay la. ah ba ëpp la fugu kon mu ëpp fukk. tolluwaay la loolu tolluwaay la man dépassé naa foofu dépassé naa foofu. est-ce ah, que damay fay doog agsi nag. voilà moom maanaam day soog a agsi si fukkam. Ah, yàlla na ko yàlla may yàlla kii rek jàppale rek. waxal li nga bëggoon yàlla may yàlla may ndax loolu nga bëggoon waxal rek. non non du ma ne yàlla. <laughs> amiin non non yàlla yàlla nga. avancé loolu nga am yow xam nga loolu sax. combat barki Seydina Mohamed combat nga am. wax laa am. kay waxtaan waxtaan nga loolu laa am wax laa am mais aw ma combat. pour wax gis nga bañ wax sax moo tax ba ma jógee fële ñëw toog fii jàpp sama ñàmb. est-ce que waaye léegi kan waroon waxal foofu. mais du du question de lenn de. du question de lu ngeen ma pële wala la dara de. lu la pële déglu ma rek maanaam ay wax ay ay ay nii nii maanaam da jéem a déstabiliser adversaire wala. loolu loolu mbëri mbëri nga def ñu ne mbëri ndaw waaw dañuy wax pour mën a jaay bés bi te yow xam nga ni combat nga am. waaw mais dañuy wax mais dañuy wax. yow li may def ni du wax. dañuy wax mais wax bi dañuy day jaar si kàddu. yow affaire ndeysaanu yi ngay jël teg fële. te jël lu wax rek saf. waaw loolu mais si jour bu at bu sifflé di nga gis leneen lu dul ndeysaan. li may wax ak sama jëf laa boobu. waaw noonu la demee. at at bu sifflé di nga gis leneen. at bu sifflé la ngay def rek nga daan def. ñëw bëre ba sonn daanu. waaw noonu la te sax su ma lay jàppee di la daan. mooy maanaam man. kon day yërëmtal. kii daan ndeysaanu kii moo xool affiche bi moo yàq affiche bépp maa ngi def ñàngal teg sama garde bu baax moom mu ñëw ma nit war a mooy li ma la wax rek sa waay mi la la jàppe de. kii du dara. mooy li ma la wax kii mel ni mu li mu li li mu la jàppe métti na de nooy neex la la jàppe de. tey jii da daanu. kii mbaa jàppe la banaana bu nooy kii jar naa waxal de daanu ñu lay naan gàcce ngaalaama déglu ma ga daanu ñu lay naan gàcce waaw. waaw kon kooku. maanaam waaw sa combat ak bébé jëndee. Mhm. kooku man nag maa xam man maay bëre daanu même su ma daanoo sax dañuy naan gàcce. waaw loolu yàgg na ci làmb. waaw loolu nga xam ne yàgg na ci làmb. yow boo bëree boo daanoo boo bëree boo daanoo cam la wax comprendre nga. lu tax lu tax nga ne ko cam la wax. waaw moo tax. ah yow laa koy laaj. léegi ban ban combat laa daan ñu ne cam. waaw ban daan ba ba. amul baaw kan kañ la daanu ñu ne ko cam. waaw deux défaites yi a. man déglu ma ma tegale deux défaites tegale victoire boo xamoon ting si ni muy demee ah. mais barki alxuraan bëri ma daan ñoom ñaar ñi ma daan ah. kenn daanu ma ma wane nga lañ fes laay dóor wala trois bi. kan ak kan la daan Boursine moo ma daan ak Boy Diop. Boursine bu Bawal bu Boy Bawal. bu Bawal waaw bu Bawal ak Boy Diop. fes laa dóor kaadaat bi loolu mooy samay defeen mais mbër daanaka ma fi ma ne nga lañ comme ni mu def. Hmm. te dama ne kuy nelaw. de moom nga da nga koo gis mu def nga lañ. waaye kii ñetti yoon def na fi nga lañ sama bët muy wax naan ñaari defeen la am trois defeen nga am. bu la caméra yi tim ngay wax wax yoo xam ne man amul. ñan ñoo ko daal yow nga ne trois yow kii xam ne ñaar defet am la am nga ne ñett nga am. yow itam Seydina Mohamed trois defet la am na ko waat. Fourier waatal. waaw mooy lu ma la wax rek xam nga moom maanaam moo xamul dara si man. parce que interview. mooy maanaam mu ne man la kat 2013 laa dugg si làmb 2000 avril 2015 laa dugg si làmb pour mu leer quoi pour mu leer ñëpp. avril 2015 laa bëri laa dugg si làmb te maa bokk kii 2016 mu bokk si révélation yi man ak ñoom nongaloo est ce que comprendre nga. waaw 2016 man maa bokk si révélation soleil soleil bi dafa bind. sunu làmb waaw mu leer naa ñu kon kooku noonu gàcce ngaa làmb rek lañ ko mun a wax moom amul lenn loo xam ne moom maanaam moom mun na ko salee sama sama sama. sa carrière sama carrière. déedéet salta saltalu la champion la ñaata defar nga am laa la laaj. trois nga am bul ne ñaar. déggoo ma de. ñaar yow lu nga wax yow lu nga wax. li nga mbër wax loo xam dëgg gis nga bu bu gët yokk say victoire bu mu tax nga wàññi say défaite da ngay wax li nga xam ne moom nga am trois défaite nga am xaw ma ñaata victoire mais bul wàññi benn défaite naan yokk say victoire loolu mënta ne Fourrière defoo fi dara loo xam ne man defuma ko fi te yow jaaxaloo ma tey bu la caméra bi tiim nga naan ñaari defen nga am trois defen nga am. mooy lu ma wax rek. mooy lu ma wax démb ak barki démb mooy li kii mënul liggéey loo xam ne ne laa lay wax ni jaaxal na ma ci làmb mënul indi doole boo xam ne ne. yéen ñaar ku dàq bëre. maa nga dàq bëre maa nga dàq xeex kii ne ah, yow mi sa jëm bopp ah déet boo waxee dëgg te yàlla sax man déet déet déet kii nu man kay nag maa ngi. non laa dëgg. waaye yéen ñaar moom mënu maa ko dàq non moom mii la kay yéen la waa Vox Arena fay xaalis pour ngeen waxante ay dëgg yow kay ne ko maa la dàq bëri mu koy dégg bu dee moom ngay bëreel waaye man kay mënu ma koo prouver xam naa daal ay xale yu am ambition ngeen yu mën a bëre yéen ñaar ñëpp non lenn daal la ma dàq ma nangul ko ko muy ñaawaayam bii moom loolu loolu loolu yéen ñaa ko gën a rafetlu kii kañ na war yàlla yow kañ nga yow moo tax man su ma toobee man su ma toobee man dof comme yow bu ma su ma mel leen dof comme yow waay ñaala sa yaa comprendre rafet bi rek déglu ma rek am naa ne lëm ngeen moom ni man maa ngi ko gëm ñu laay de xaw ma nag dañuy waxtaan kii su mu ko toppee dof laay doon comprendre nga maanaam kaddu kaddu kaddu kaddu mbër day dof ci li muy def. ah Babacar li muy def ni da cee dof. moo tax Babacar dof ci de Babacar dañuy wax wax boo xam ne. nit ci lépp looy ne dañ ciy dof. koo déglu koo déglu day xam ne ah, ci carrément ah, li ma la wax. nit ci ah, lépp loo ne dañ ciy dof boo ciy dof di jariñu. nekkal nit ba ma fekk la foofu. dof bi yow nga dam dof nga yow. mais man nga ma fii la bay jaar. si jour si si jour si dana nekk dof. man de kanam yi laay laaj téléspectateurs yi. na ngeen ma yéen si abbas yéen ñiy commentaire yéen ndongo Fall Italie. beneen ñoom yéen ñaar waaw sama gars yi ñoom Baye Sall Paris waxal leen ma ñaari kanam yi ñoom jigéen ñaar ñi kan moo daax loolu la man lii laay laaj dofee ma dofee neex na waaw baax na yow tey ma taxaw man maa la gën a clean fop waaw baax na dof waaw dëgg la bi sama gars yi ñëwee gardien lañ la foogoon dëgg la nga la buy jaar kii sol li mu rafet ndeysaan mooy lu ma la wax mooy lu ma la wax su ma ko toppee su ma ko toppee man naa nekk dof comme moom du ma du ma nangu loolu est-ce que nga. waaw dof nga jël li nga dof. non non waaw avancé wu bu ma xamoon dof nga sax du ma la jël. bu ma xamoon dof dof nag du ma la jël. problème daa mel ne avance dof jël ma sax xamoo ko. waaw dañ maa jël ba pare rëcc ko. moom a rëcc ko. lu leer. daan ma fii la bay jaar. wax sore doo doo daan doo def dara dama lay duma daan la. maa la ëpp doole foofu man ku may duma daan moom moo judoogul déggoo olof de ku may duma daan moo judoogul balaa maa dee ñu naan combat moo bébé jën yow bébé jën yow bébé jën xam sax du xeexkat dóoroo ba nga tourné balaa maa dee nga yaa ma daax xeex yow ñaawaay rek nga ma daax <laughs> ma nangul la ko yow yow la bëggoon dangaa dof mais kii bu waaye man lébu ah léegi lébu dama dof lébu dofuñu la mais yow da ngaa dof ah loolu wax lébu la ah déet lébu yow da ngaa dof yow dof dof lébu ah, kay da ngaa dof jaay lañu xanaa moom kay ngay wax kii waaye waxu dof lay wax wax yu muy wax waxu dof la Babacar ñun xanaa ay séeréer la ñuy wax léegi nee na ma lébu yow da ngaa dof waxu ko fi léegi eh, non non loolu de ah, man nag loolu nee na ma lébu la lébu nga da ngaa dof lébu nga da ku lu kuy lébu rek dawal fii di lébu ay nit dafa di ma jéem a jaxase ak lébu yi munoo ma jaxase ak lébu yi ku lu kuy lébu bëgg yow da nga dof yow bu dugal sa bopp xam nga li ma wax li ma doy ma li ma rëm ndoy da mën ngaa dëkk grand ne boy temps di patiner xam loo war a wax. ma lu may a ma ko may. kii daa xam fu muy taxaw. daa tiit déedéet déggoo la wax yaa ngi ko ma lay wax waxu nit naa la ko jeex na sax boo demee nga tëdd nga nelaw nga analyser. loo ko wax loo ko waxaat waxu nit pour ñu déggaat ko. waaw mooy maanaam. waaw dof nday dafa ne. waaw fu nit fu maanaam bëri wax. waaw fu fu fu nit di bëri wax man dama leen di jéggi est-ce nga mooy maanaam taluma wax maanaam fees war a jëfe kenn du fa wax voilà ku mënul wax waaw wax ju bëri ku ku mënul jëf wax ju bëri da lay yomb ah, dof ndaye wax loolu waaw léegi ku mënul ma tegal ko ci moom kuy wax tey jëf nag yow loolu nga mel waaw kuy wax tey jëf nag yow da ngay wax di jëf man samay signature day neex su ma bëree stade damay tuus mu neex su ma bëree nit ñi dañuy kontaan ah, moo tax saa su ma jógee caaree neex na ci déggoo ma de dama fi la bay jaar. yow sama combat ma bu fekkee tuus bu fekkee bëre laa lay wax. bu fekkee indi ko yar. Zarko lan la fecce Zarko andi café bi doon toj ay ta fecca. Zarko ma ñoon ko xam-xam ne daa mën a fecc. bàyyi Zarko moo ñu bokk benn deret ñu bokk ndaay ak bàyyi bàyyi ma ñu na dàq tuus Zarko. waaye foog nga naan ma fii la bay jaar bàyyi ma ñu làmb moo fi dàq tuus. làmb jépp. Babacar yow am na yoo xamante sax jaruma si àgg yow xam nga li ma lay wax. waaw mooy lu la wax rek. kon magam daa mel ni daa jàpp magam a man sa mag daa mel ni de. non du question yi man laa wax tuus fecc quoi. fop waaye loolu dañoo yem maga moo du sama maga man damaa jàpp ne man maay sama magu bopp est-ce que comprendre nga hmm. man loolu laa jàpp si àdduna quoi man maay rakki mbër la de bàyyi ma ñoo nay magam de moom magam ak yooyu yëpp man loolu moom la laa juddu déglu ma da ngay déglu moom expliqué ba pare. man yow yaa may déglu yow. waaw waaw déglu bàyyi ba yaa may déglu. bàyyi ko. Ah, waaw bàyyi bàyyi déglu ko. bàyyi maa la ñaan buñ la waxal la waxee waxal lan lay wax. waaw yow li nga ma laaj laa lay wax. waaw waxal bàyyi maa la ñaan déglu ko. ay sadap. déet waaye déglu ko rek Fourier waxal li nga bëggoon a wax mooy maanaam ma nga waxoon lu mu ko waxoon bu njëkk ba laa koy delloowaat mhm. famille dafa séddu famille dafa séddu macha allah loolu ah? dof rek loolu mooy baa mu baa mu njoon dafa séddu daa séddu mooy tekkil ma donc rendre ma man damay cax comprendre nga man nekk ah, ma fi di wax seetaan il faut ñu ma fi di mooy lan maanaam affaire pa yooyu waxal li man de li nga bëgg a wax jaaxal nam te jaaxal nañu seetaan Fourier lan la séddu maanaam ci làmb wala mbër gi mu doon wala Uh-huh. dégg na daali man maa ngi ñaan ah, dégg na daal maa ngi ñaan maa ngi ñaan mel ni moom. est-ce que comprendre ah, nga waaw loolu laay ñaan quoi bu kii moom da kii ki kii kii kii nan daa bëgg a raw Baye de te ci yow la bëgg a jaar. waaw mooy li ma la wax rek. déggoo li ma la wax de nee na daa bëgg a raw magam Baye ma njoon parce que nee xolam moom day mer ndax li koy merloo mooy ñi daan magam la bëgg a daan. te dina yow mii da laa bëgg a jéggi jàll pour mel ni baay raw fay fayu fayu li baay ma lu ma la wax rek moom bu meree benn man mer naa fukk te daa lekk kii def ma sax boobu kii hmm, nii. Hmm. def ma sax boobu yu metti. doo tëdd guddi sax di délire di xalaat naan ay baay nga toog nii tiim sa lekk di xalaat di ko xalaat. moom yaa ngi xàppi. moom bu demee ñu ne ko yow kàlla mu ne yow fourrière. waaw carrément dinañ koy am nga combat. mbaat loolu la ko waa ko ñoom wax force lañ ko koy wax. kon Mbab daa ñëw fii di saale du question ah du question nag nga ne. waaw loo man lu ma prouvé la est-ce que comprendre nga. loo xam ne moom maa ko wane est-ce que comprendre nga. waaw noonu lay demee. waaw yow yow dama laa laaj ban adversaire nga fi daan boo xamante ni man daan moom adversaire boo xamante toll naa moom niveau. ah. ma ne ban adversaire la fi daan boo xamante ni man moom daanu fi adversaire adversaire boo xamante tollu maa moom niveau. kàngam champion la rawaan kan moo gën a doon champion ah moom benn combat la fi bëre bu ñëpp xam muy ma ma Bébé Diène di la nit ñi xamee noonu lañ ma xamee. déggoo ma de yow benn combat laa lay wax la gars yi sama gars yi di tàppe di gis combat mooy yow kàngam. léegi ma laaj leen déglu leen ma waaw léegi déglu leen ma léegi leen ma léegi s'il vous plaît déglu leen ma. combat bi. Mhm. bu gaawee wala mu yéex bu la ci gënal. combat bi déggoo ma dañ koy pare ba dañ koy pare pare maanaam longue durée lañ koy pare. Mhm. est-ce que moom bu jàppee ne bu jàppee ne muy gaaw wala mu ngi yéex mu ngi kii ñun daal lépp loo xam ne ne làmb làmb laaj na ko bu jour waa loolu lay indi. loolu ngeen di indi voilà. yow bu gaaw wala mu yéex la ci gën a. mu gaaw. moo la gën ñu teel a ñibbi. waaw dóor mu daanu mën naa lu ne man lépp la ñuy indi mais en tout cas daal combat bi du yàgg. du yàgg. yow dóor mu daanu mën naa am. bu nee du yàgg ak dina yàgg ak yooyu. non dama lay laaj. maanaam moom bu ko tontu tontu ma dóor mu daanu mën naa am. dóor mu daanu mën naa am. ngeen xeex kenn wàcc. waaw la nga tourné koy yéen ñaar ku dàq xeex moom loolu la foog. ndax non non de tontu ma rek yow bàyyil kee waxal ak man. ku dàq xeex fourrière bàyyi may ma bàyyi s'il vous plaît fourrière yaa kii ku dàq xeex. kooku du bëre katu mbapat kooku bëre dafa bëre mbapat. bàyyi booy taawun la bàyyi. yow ma ñëw s'il vous plaît bàyyi bàyyi déglu ma yéen ñaar ku dàq xeex fourrière. Mm-hmm. kii maa ko dàq bëre la la ma dàq. waaw la la ma dàq. waaw wax. noppi baal ko waaw kon bàyyi ko wax léegi comme moo la dàq wax bàyyil mu wax baa yàgg kii ku dàq ba ku ku dàq bëri rek la am te ay wax waxu dof maanaam bu wax nit sax dof la maa nga ëpp li mu li nga xamante ne moom dàq na ma ko nangul naa ko waa léegi ma laaj leen leen boobu moom defe naa yéen ñëpp dégg ngeen ko te war na leen a xari moo fan yi bi fi ministre génnee lu toll ni ministre ne mbër yi ñoo newoon ci mbedd mi di def ay violence ak yooyu xëy na nag daa juum kilifa la ndax nit Youssou Ndour waxoon na ko noonu na mag dina juum kilifa dina juum xal dina juum sultaan dina juum ay na njuumte la waaye njuumte la ba mu dalee itam defe naa ba ngeen ko diggee naqari na leen wax boobu loo ma ciy wax ci lu gàtt waaw loolu man affaire Gambie la ma fekk hmm. même problème yi mu am yëpp Gambie la ma fekk mu hmm. man dama ne lii est-ce que Sénégal la hmm. mais gëm naa ni ministre boobu moom daa xamul lu mu war a wax ndax juumul daa dem jël téléphone xool la ka neex mu wax ko ah, kon juumul juumul ndax tey bu doon dafay juum dina toogaa si plateau yi rectifier ne damaa juum mais boo bëlee kenn déggul mu wax ay la wax kon da nga jàpp ni daal moo ko. waaw kooku dañuy ñaan Macky Sall mu génne ko waxuma mu folle ko si ministre bi de mu génne ko Sénégal. yow bëgg a faral ab sénégalais itam nag. mais sénégalais nga yow sénégalais. waaw mais non yow boobu nii la fi génn yëpp di wax. waaw ak la xale yi nga xamante ni sax mooy loolu ku gudd rëy rek ñu ne mbër nga tamit. mbaadu ah tamit dañoo xam ne doy na waar yow Fourier wax boobu tam loo ciy wax. waaw mooy lu ma la wax rek genre gi rek moo tax ñuy wax. déet waaye yow itam waxal ci wax jooju te ba genre gi. man yabewuma samay supporter boo xam ne dañ may jël ñëw fay ma dara bu ñu ma fayee un milliard daw ma. kenn du la fay ngay nekk nerveux yow parce que maanaam maanaam yabewuma samay supporter comprendre nga. tërëfal ay nit boo xam ne dañ may naan ni am am kaay man may man may dem di dóor samay samay supporter yabewuma leen foofu. doo ko def est-ce que mhm. premier jour bi. gars yi la lañ doon wax mbëri mbëri. nervi mbëri nervi mais deuxième jour troisième jour wax ñu mbër mhm. mooy maanaam ku yor suñu communication mhm. muy Gris Bordeaux di ko saluwaale de passage mhm. wa wax na loo xam ne dafa am solo comprend nga mooy maanaam ba mu déggee mbir mi woote na wax na gars yi waxtuñ ci mais sénégalais moo baaxoo moo baaxoo bu lu xës ba génn duñu duñu xool suite bi maanaam lu xës ba génn la moom la ñu jàpp kenn am na solo am na solo Papa Thione yàlla na ko yàlla jégal xare ko àddina loo may wax ci génn àddinaam en tant que jeune te defe naa itam daan ngeen ko déglu. waaw Papa Thion moom télé téléphone boo gis te am na sama Papa Thion. ndeysaan ndax loolu rek kon symbole. Mhm. di ko ak mboolem jullit mu fekk di ñaanal sama papa ak sama yaay yàlla xare leen àjjana. amiin ak mboolem jullit mu fekk. amiin waaw am na solo Papa Thion looy wax ci génn àddina. waaw. Euh, di ko di ko jaalee famille bi yëpp rek rawatina Wally Ballago Seck mhm. xam nga di jaale Sénégal yëpp parce que. daanaka man sama waykat la sax. Papa Thion waaw Papa Thion moom daanaka man sama waykat la. dëgg la waaw moo bëggee waali sax moom moo tax quoi. daanaka parce que man moom laa moom laa doon supporté maanaam. Papa Thion ñu bàyyi ma ma ma topp. nga topp waali. waaw am na solo. ma di ko jaale famille bi yëpp xam nga. Mm-hmm. di ko jaare waali bu baax a baax di ko jaale monde entier. monde entier. waaw parce que lii lii deuil national la. Sénégal loolu am waaw parce que icône la. Mm. macha allah am na solo léegi Vox Arena mu ñëw tëgg leen lu ngeen leen di wax di label bu bees di doog a juddu looy wax waa Vox Arena bàyyi ma njoon. waaw Vox Arena xanaa di leen sant di leen gërëm rek ndax ñu bëri ñoo ngi doon dox sama combat antuwul tey ñoom ba ñu waxee sama combat. 24 heures si la taxaw daanaka. Mhm. maa ngi leen sant bu baax di leen gërëm di nuyu ki nga xamante ni mooy DG man DG rek laa koy xaw ma turam. waaw nuyu Alioune Badara Diouf moom mooy moom mooy DG Vox Arena del wax Alioune Badara. waaw Alioune kilifa la mais. numéro bu ne laa koy woowee te daf may jël. ndeysaan ah, ah oyof trop dama di ñu inventé message whatsapp. Mhm. billaay daf dama koo naw daal. Mhm. di ko ñaanal lu man ren déwén yàlla na mën loo xamante ni lu raw lii la daal. dëgg la di ko ñaanal lim sumb nii. Mhm. mu gis si li nga xamante ni moom la bëgg. li mu bëgg nag moo xam di ko ñaanal yàlla defal ko. yow looy wax Vox Arena. waaw Vox Arena dañ lay ñaanal sa kaw sa kanam rek. waaw di ñaanal ñëpp jàmm xam nga di ñaanal Vox Arena mu doon ba doon label bu gën a compte boo gis un lay commencé. loolu am na waaw. jàpp rek bañ a bàyyi xam ne waaw dina ñëw lépp dina ñëw. lépp dina ñëw wooteel. nga woote après ñu ñaanalante. waaw mu bañ gudd na parce que bu ngeen bëggee woo ñëpp du sotti. noo man du gudd. waaw da ngeen koy tënk rek waaw ngir yàlla bu leen ko dagg. Mhm. waa Caaroy sur waaw ñun dañoo ne mbëri mbëri gox buñ jugee rek Caaroy ñëppay jug. Mhm. di woo suñ mbokki lébu yëpp. fukki juróom penc ak ñaar yi xam nga ñu koy waxee sax fukki penc ak ñaar yi di woy suñu xalifa ba Ablaye Thiaw mm-hmm. di nga ñaanal yàlla bàyyi ko fay ñu ci kanam ak kanam appel bi ñu jëm bi ñu jógee barki dem moo njaay di ñaan képp ku fa ñaan yàlla ngay yàlla nangu di woo sama gaay ma fi àndal ku si mel ni Badou Fall numéro 2 mm-hmm. ak Sora ak Cheikh mm-hmm. ak waa Sall top 5 ak ñoom seex ñi may jàppale sama combat yi ñoom Omar Sène ak ñoom Mame Baba ak ñoom Abi Faye di woo waa Caaro ñoom ku lim da ngay jum di sant sama mag bàyyi ma ñun bu baax a baax a baax a baax man namm ma dara lépp lu sama morom dam maa ngi am di sant jabaram lépp bi sama yaay gaañu ba léegi moo ma yor Rose sama yaay la kooku nekkatul sama jabaru mag. dëgg la waaw fu ma taxoon nag dinaa ko am na solo. Fourrière wooteel. waaw di sant bu baax a baax rek di la sant bu baax. di sant sama adversaire bu baax a baax. Mm-hmm. di woo waa Grand Yoff yëpp da leen ñëw leen bés bi seen bés la. Mm-hmm. le trente le trente mai. incha allah incha allah ñu ñëw defee ko comme ni ñu ko daan defee. Mm-hmm. ku ku ñu xam xam nga xam nga ñu suñ mobilisation. comprendre nga. gars yi di leen woo bu baax a baax. di sant koo xam ne ne nii kenn la si man muy bésay. ngay sant bu baax a baax. dëgg la. ndax combat bi passé gis gis na gars gis nañ ni mu demee jënd na billet yëpp maye xam comprendre mu papaam maître Ousmane Seye comprendre na mm-hmm. waa di euh, du nuyu sama benn grand di ko sant bu baax a baax tamit mm-hmm. Mm-hmm. kooku sonn si man la di sama grand ron di ko sant bu baax a baax euh, di sant képp koo xam ne ne ne mu ngi may jàppale comprendre na képp koo xam ne ni surtout sama papa di ko sant bu baax a baax a baax gis naa taxawaayam bu baax a baax si doomam am na solo comprendre di ko jaale moom ay waajuram dëgg la comprendre nga. di ko jaale bu baax a baax ay waajuram. ndeysaan am na solo teel a teel dafa métti quoi. waaw su ko jaale maa ci xam dara. Mm. man mi teel a ñàkk yaay saxuma yërëm la yow. maa ci xam dara waaw mais bàyyi loolu moom mën nga ko ci ne jërëjëf. Mm-hmm. sigil mbër waaw. Euh, mën nga ko ci ne jërëjëf ndax nag. la mu ñaan am na solo dañuy tàngal nii rek neexal waaw non mais waaw mais xam nga dañuy jaay bés bi. non xam naa loolu waaw. waaye loolu moom du tere moom moom muy di la jaale sax gis nga su arbitre soufflé <laughs> fii laa la ko waxee yaakaar naa lu mu yor ko dóor. moom kay jaal bi fii la yem. kii moom kay di ngeen dóorante. jaal bi fii la yem. kon léegi nag li ñuy def mooy. dañuy tàggatoo Fourrière nga may ma s'il vous plaît may leen ma léegi. ñu tëj débat bi débat bi macha allah. neex na bëri wax. bëri s'il vous plaît leen ma ay ay xale ngeen te da a bëgg a dem fa ñoom Balla Gaye ak ñoom Eumeu Sène ak ñoom Baye ma ñoon nekk du ngeen ñu may s'il vous rek ak ñoom ñu Modou Lo fañ fa fa ngeen bëgg a dem kon kay bàyyi leen di ngeen di ngeen waxaat bu soobee yàlla fii Vox Arena la ak Equivox la fi waay bëgg a wax ci lu mu doon ci réew mi di nga ko fi wax mm. bu soobee suñ borom te mu méngoog ay teggin te jaar ci yoon ndax ci façon boobu la ñuy liggéeyee danañ fexe image yi set son bi baax mm. wax ji teggi ne parce que loolu mooy suñu slogan fii Equivox TV rawatina Vox Arena parce que borom kër gi sañ ci kër gi ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla kàttanal ci effort yi muy fournir ngir lan ngir dimbali. am réewam participer ci développement réewam ñu ngi koy ñaanal yàlla waaye di ñaanal yàlla tamit badu mi nga xam ne moom mooy DC Vox Arena di ko ñaanal yàlla di ñaan tamit ñi nga xam ne ñoo fiy liggéeyee ñëpp rawatina suñu directeur El Hadj Diouf directeur Euh, de production mooy sama DG ndax ku la dalal baa moom nga sañ a wax DG te moom mooma dalal baa te xataluma maa ngi koy nuyu du nuyu ki nga xam ne moom la doon àndal nekk ca France di sooxu Omar waaye yàgg maa yow tamit yàllaa ñu boole ca Leewtoo ba te yàqoo ci dara waaye comme du kenn du gomis njaagu Serigne Saliou waaye sama xale bee ma bëgg lool di balde doomu mburu géej moo koy nuyu l'infatigable Habib maa ngi koy bëggee di nuyu waa kër gi yépp Ami Diouf mi nga xam ne tamit mooy taawu kër gi ci jigéen ci li xam yàlla na ko yàlla kattanal ñoom uli ñoom baaboo Baabo Fatima Abdou Saliw xulle mu bàyyi ñasat ami mi ci waañ wi wala assu mi ci waañ wi du ñu fàtte kenn bu ñu limee dinañ cuub nuyu nañ ñëpp balu ñëpp ak di nuyu ñi may sonal solal rawatina waa Lamp Fall lu na tëri tey ñoo jaar fii ci bula blanc bi maa ngi leen di bëggee bu baax a baax di nuyu sama waa dëkk nag waa ak yaay parce que nag sës bi mu loolu la yàlla dogal di nuyu sama seex ba Lamine maa ngi koy bëggee bu baax a baax Lamine suukal sa ma jëlalee gàm bi dafa bari lool El Hadj Diouf suukar su baree bare war nga la ma andil kon Lamine Seck itam wax dëgg yàlla mun ma koo bañ di tudd ndax li tax mooy Cheikh Abdoulaye nun na géwél amul ku la defal lu baax nga wax waaye réew mi moom nanu fexe ba ñu sàmm ko sëñ mun Muntaxa sëriñ Mbay Si Mansuur Baay Ablaay Caw ak yeneen xalifa yi ne ci réew mi ba ca ka ca lew naag ka ca méri naag chrétien na nañu exemple bi bi coow li amee ci mbas meeg bi nit ñi faatoo kon nan na leen roy ñi jiite réew mi tamit waxoon naa leen ko dinaa leen ko waxaat nañu xam ne aw askan la ñu jiite di wàcc man président Macky Sall lii maa la koy ñaan man bëgg naa des fois ngay wàcc ak sa tànk dugg ci biir marché yi waxtaan ak nit ñi gis nga nit ñi sécuriser la mooy gën a wóor sax armée bi kese sécuriser la loolu nag li koy indi mooy nga jege askan wi ñi la koy xañ bañal parce que pour man dangay ngay gouverner pour defar ku bëgg a defar nag dangay bàyyi loolu xel Sonko yow tamit loolu nga jàppoo bu ko bàyyi ni nga jege ñi askan wi continuer ci même ëllëg bu la yàlla joxe wala mu jox Karim wala xalifa wala ku mu mën a doon dee leen jege askan wi loolooy tax jàmm ne ñooy di ñaanal ñëpp jàmm esponsor yi nag daw leen ngeen ñëw ndax fii mooy Vox Arena lépp fi lay leere belle image kontaan naa gars yi